aussi maa ngi interpeller di alerte ñi nga xamante ni mooy suñu mbokk politiciens yi nañu bàyyi xale yi nga xam ni ñoom lañuy ñuy jal ci kaw ay leader politique ay kilifa diine ñuy saaga askan bi loolu nag ki ma siy njëkk a mooy Ousmane Sonko sama xarit la waaye na bàyyi ñi nga xam ni ñooy ànd ak moom di nit boo ànd moom da nga koy jox cër ndaw la man ku ne xam na ne ba nga xamante ni mooy am na ay jafe-jafe maay ki njëkk jug ànd ak moom dagg sama voyage jóge Istanbul wàcc aéroport dem këram combat bi déclassé ñu nangu samay kër tëj sama entreprise ngir moom ma muñ koom ngir xeex démocratie ak li nga xamal la ko doon def kon tey bu ma demee ba nga xamante nii situation bi ñëw na kenn ku nekk am sa liberté na nga ex sa liberté waaye nañu bàyyi saaga yi ak wax yu ñaaw ji man saxaar laa maa ngi ci kaw raay bi Serigne Touba mooy sama gaar ku faj jaar ci kaw raay bi naa la fir jàll man nii Ousmane Sonko nii Abdoulaye Wade nii Macky Sall man Serigne Touba laa gëm mooy sama wóoruwaat kum si man di doon li ma ñor mooy Sénégal ak askan kon loolu bëgg naa aussi ñoom ñu xam ko député yi ne fii dem nañ xam ni Touba moo leen fal dañ leen dugal ci liste waaye Touba moo leen fal Touba moo leen tànn nañu bàyyi xel loolu te delloo Touba waaye aussi mënuma comprendre nga dem ba foofu nga wote ci biir commission yi ci biir bi nga génn plénière di def yeneen së yoo xam ne la nga defoon kooku naa fekk la te man du ma naa man du ma naa fekk du ma ko tricé du ma ko ñu jënd du ma warkat Tuubaa ma ñor na jël na sama bakkan nee naa leen ci péccu ndawul réew mi fekk benn député bu dëkk Ziguinchor nee na moom bu ñu doon jox seen Ziguinchor lépp te xañ yenn Sénégal du woote bés ma ne ko man bu ñu jox Touba ñaar téeméer xañ Sénégal mu woote Touba ba Touba moo a ñor ndax bés buy dundee sëñ Touba nag dafa bokkul ak ki nga xamante ne gëmoo sëñ Touba moo tax sama taxawaay ci pindu ndaw réew mi mu am différence ak yeneen député yi kon loolu yéen yi nga xamante yéen a ngi may seetaan yéen ñi nga xam ne yéen laa war a waxal yéen ñi nga xam ne yéen a ma yóbbu woon assemblée nationale damaa bëgg ngeen dalal seen xel. xam ne Cheikh Abdou Bara Dolly lépp lu mu def lu nekk intérêt askan moo tax moo di ko def rapport Cour de comptes bi ñun wax nañ si en tant que coalition en tant que groupe parlementaire liberté démocratie changement première décision bi njëkk a def mooy dañoo bind leetar pour le président assemblée nationale pour ñu taxawal benn kuréel bu ñuy wax haute cour de justice ci assemblée nationale ngir ñu war a activité seer parce que rapport bi dafa garaaw garaaw goo xam ni waruñu ko bàyyi noonu wax naa si démb te si laay continuer wax ci laay principe pour que ñu leeral li nga xamante ni mooy xaalisu askan ndax man mii di wax ak yow dugal naa sama xaalis keneen dugal na si xaalisam comme cour de compte génn na ni am na ay luubal bu ñu koy yamal rek si daas yi ndax dafa am benn si maanaam benn euh, service président boo xam ni comme li daloon la cas de Khalifa Sall ministre yi dañ leen war a topp ba ñu yem si daas yi loolu nag incha allah dañuy fexe ba nga xamante ni ñun li si war a daan ko léegi li nga xamante ni moo jëm ci li nga dégg nga waa Yewwi Askan Wi wax ko ñun loolu concerné wu ma concerné wul ndax ñun duñu ay xale bay tëgg ay bool ñu lu ñu ñor mooy nu ñu fexee ba jële fi Macky Sall te dafa am lu ñu digoon yi dama bëgg ngeen xam ko baax li ñu digoon Sénégalais yi mooy bu ñu demee assemblée ñun wàllu ko Yewwi daw ñu fexe ba dund gi wàññi ko dañu dugal loi de finance bi loi boo xam ne dafay xeex nguur jigéen loolu ba tey dugalaguñ ko assemblée lan la ñuy xaar dañoo waxoon dañu modifier code électoral bi pour Khalifa Sall ak Karim Wade nekk candidat loolu ba tey defaguñ ko lan la ñuy xaar dañu waxoon ni ñu fexe ba nga xamante ne daan dindi log dotation yi ci prison yi loolu man mii di wax a yow def naa si proposition de loi ministre bi nee na moom def na si benn nga xam longue dotation yi daan ko jëlee maanaam limitation yi indi ko 300 loolu tamit liggéey ko ci assemblée nationale loolu mooy lu fi jot def ñun bokkuñ si fi caaxaan yooyu noonu bokkuñ si ay casserole yu ñu tëgg décembre kon maa ngi laa si appel ñun daal tracé bi ñu am mooy Macky Sall jóge ci réew mi nu mu gën a gaawe